sama ay ngëneel mooy boor bi nga xam ne moo yëkkati diine jiit diine lislaam ay waxtu def ko mu doon ay jagli ci ay jullit noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne amul benn buur ba yooyu ak jaamu jaamu ko mën a jural njariñ ki koy jaamu ñàkk gaa jaamu mën a jural lor yàlla moom rekk la amul benn buur bu dul moom noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne sayyiduna muhammad ndawam la waye it ab jaamam la yalla julli ak sëlmal nek ci mom mom ñooñam ñi nga xamne ay way ragal yalla lañ ak sahaba mi nga xamne ay way yërëmante lañ ci ay way dëgër ci siratal mustaqim yalla julli ak sëlmal nek ci ñom mbokk yi ñu suñu kàddu ci mastawu suñu mbokki sénégalais yi nga xam ne ñu nga fee ci Tunisie te jamono yëpp ñuy yëg coono yi nga xam ne ñoo ngi ko fee dund ak tiis yañ fay yañ fay dund ak metti dañ fay dund ñu leen di mastawu ca nattu yooyu nga xam ne moom leen suñu borom teg ci foofu ñu nekk te dara génnewu leen génnewu leen seenu réew lu dul wut lu ñu fàggul seen njaboot indi ko ci seenu réew man cee taral seen i jaboot taral ci seen i waajur ay natt dab leen foofee ñu nekk nga xam ne wut teraanga rek leen fi yóbbuwoon yàlla yàlla teggi leen natt yi waaye ñuy soññ suñuy autorité <clears throat> ci lépp lu mën a gaaw ci dem taxaw ji leen nañu bàyyi seen yitte yépp te def ko muy jan te muy dem taxaw seen doomi réew yi nga xam ne dañoo génnoon di tuur seenu ñaq ci àll bi ngir luñ dundale seenu njaboot ba ay natt dal leen fa luñ gaaw ci dem sauver seen son seen doomi réew xeeb nañ ko kon ñu ngi leen di soññ ñuy dem taxaw bi senegal ya nga xam ne ña nga foofu di fa dund ay xamee ne ne la ko seeni moroom yi réew defe dem jëli seeni seeni askan dellu si ni ci seen seen réew ba jàmm dellu si waat loolu ñu ci soññ suñu autorité mbokk yi li ñu bëggoon waxtaane tey day ñetti àjjuma ngi nii ñu waaj ko waaye saa suñu ko waajee dana am lu dox suñu diggante waxtaane ko waaj nañ ko fi mu tasanteeg Serigne Mountakha di ubbi université bi ñu waroon ca waxtaan. ajuma ji ci topp tolloog màggalu Kazu Rajab ñu di ci fàttali ci Cheikh Mamadou Fadal waaye war a fàttalikuwaale suñu maam bi baax yi nga xam ne mooy borom penc bi di Serigne Makhtar ñu waroon waxtaan ci ñaari góor yàlla yooyee. ajuma ji ñu génn it réew mi jaxasoo woon coow yu bari lool ñu waroon ca waxtaan ngir gind ci jàmm. mbokk yi nga xam ne nag ñoom lañ bëgg fàttali waa réew mi waaye fàttali leen suñuy jiit ak suñuy autorité mooy ñi nga xam ne suñu borom dafa leen a teg ay nattu ñuy dund faatu ñi ci kaw suuf waaye yàlla teg leen ay natt yoo xam ne suñu borom ay seet jàmm bu ko sob mu teg ko natt te muy ñi nga xam ne dañoo nekk ci prison yi caabi féete liñ ginnaaw mbokk yi suñu borom dafa teral doomu aadama teranga jo xam amul dayo te teral gi mu teral doomu adama amul men mbindef mu ko yalla teral ci ko suuf waye amul ben jamm ko yalla teral ci ko suuf te loolu suñu borom moñ ko wax wala xadd karamna naa adam nii ñun ñëpp waxtu wu nekk ñu koy digg ci warate kat ñu wax ne suñu borom dafa teral doomu adama waaye nag bi ne man yalla mi bind nit ñi dama leena teral dafa wax teraanga ja fam ko teg dam ne wala xadd karam naa bani adama damaa teral doomu adama man yàlla danay wax xamal naahum fil barri wal bahr bokk na ci teraanga yi ma leen teral ñoom nit mooy mboolem li ma bind ci kaw suuf muy jéeri ji mooy wax xamal naahum fil barri doomu adama tax ma bind ko waaye mboolem li ma bind ci biir géej ci ay xéewal yo xamne doomu aadama daf ko wara sewlo nit rek tax mo bindiko kanen tax mo bindiko moy wa hamalnahum fil barri wal bahr mu tek ci ne wara zaqnahum min at tayyibat mbolam lépp lu tey lo xamne doomu aadama nit daf koy wërsego doomu aadama tax mo bindiko moy lo xamne daf koy wërsego mu jirol ko banex ci bakkanam waye jural ko wirgi yaramam moy wara saqnahum min at tayyibat nee doomu aadama tax ma def ko li ci kaw suuf lépp ci ay xéwal moo xam lu nit di sol la moo xam lu ñuy lekk la moo xam lu ñuy dëkke la moo xam jumtuwaay bu nit di yor di ko jëfandikoo ci àddunaam lu fi ñëw ci kaw suuf rek doomu aadama tax suñu borom indi ko fi suñu borom teg ci ne wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdila ñoom doomu aadama ma gënal leen ci li ëpp ci li ma bind kon bu ñu amee kuñ cay génne mooy malayka te malayka li muy baax baax nga xam ne moo gën doomu aadama sax doomu aadama mën naa yegg ci ragal yàlla mën naa yegg ci jege yàlla mën naa yegg ci jaamu yàlla man naa yegg ci boroomam foo xam ne day dem ba gën malayka lu tax moom dañ koo bind bindaale ko bakkan bindaale ko bànneex ñu composé ko mu fexe ba xeex ba kanam xeex bànneexam bëtt bakkanam bëtt bànneexam dem ba not leen mbokk yi kooku moo gën a kawe malayka ndax malaayka kenn wu ko bakkan kenn wu ko banex ñom duñu lek duñu nan amuñu duñu jik banex yow mi nga xam nak da ngay lek di nan di yek banex bo demé ba mëna not sa bakkan not sa banex ba yek ba dem ci sa borom yow ya gëna kawé ki nga xam mom moom bindale wu ko bakkan wa faddalnaahum ala kathirin mimman qalaqna tafdila kon mbooleem li yalla bind lepp mbokk yi nit ci gën mbokk yi nit momu nak waxtu wu nek dañu war diko samal worbu joju nga xam mom la ko suñu borom war am suñu borom ku doomu aadama la ndax li tax mooy aw xeer lañu woo xam ne ci la gën ji mi def feeñ muy sayyidina muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi moo tax suñu borom fàggu leen li mu leen fàggul ci ay ngëneel waaye defal leen li mu leen defal ci ay teraanga ndax ki mu gën a bëgg ci mbindeefam yi ci xeetu doomu aadama ci la feeñ muy sayyidina muhammad mbokk yi damaa gis ne ñii nga xam ne yàlla daf leen teg nat heure bu ñu génn ci prison yi dangay gis dañuy daal di dem envahir plateau télévision yi ak plateau internet yi di jàmbat dundin bu nga xam ne nit ñaa koy dund ci biir prison yi ci ay coono nit ñaa ngi ko fiy dund ci ay métit nit ñaa ngi ko ci aw xataay nit ñaa ko fiy dund ci ay jafe-jafe te lu ko waral mooy xataayu béréb yi ñu dugal nit ñi dafa bokk nag ci ñaar yoo xam ne jàpp nañ ne bokk nañ ci li koy war bu fekkee ne du lool rek bi ci njëkk mooy li ñuy tudde détention préventive muy nit ndax kaso mbokk yi béréb la boo xam ne yàlla ñett ay jaamam dina fa yóbbu ñett fay dem mooy koo xam ne dafa tooñ ñu yóbbu ko fa ne dañ koy yar wala koo xam dafa juum ñu yóbbu ko fa ne dañu corriger njuumteem wala koo xam ne dañ koo tooñ ba noppi yóbbu ko fa ñett ji rek fay dem ku ci nekk nag napp rek la fa yóbbu ala kulli xaal waaye mbokk yi li ñuy tuddee détention préventive bokk na ci li nga xam ne tax na kaso yi ci réew mi xat ba nekkin wa fa doom aadama yi nekk jaaruwut détention préventive mooy nit koo xam ne yàlla dafa teg ci moom am natt ñu ñëw indi ko fa dugal ko fa ba noppi fàtte ko fa bis bu set ngeen gis nit ñi di ko jàmbat ci plateau télévision yi ne da ngay gis koo xam ne dafay nekk juróomi at juróom benn at mbaa fukki at ñu génn ko yóbbu ko tribunal mu taxaw ci kanam baat bi ñu àtte ko ne ko defoo dara demal ñibbi fukki at yam def ci biir prison bi yëpp mu perte ko te moo ne mi ngee ko way jur ñu am xaq ci moom amaana ma ngee ko wane ko njaboot ñu am xaq ci moom ma ngee ay doom ñu am xaq ci moom ma ngee ay soxna ñu am xaq ci moom ñu jël ko yóbbu ko téye ko fa nangami at bis ñëw ñu woo mu taxaw ci kanam ci kanam baar bi ñu àtte ko di ko defal dara defal at yam fa tëddul yëpp ci biir tribunal boobu ci biir kaso mu perte te mbokk yi boo demee ñi tëdd ci biir prison yi ñu ci ëpp genn wàll gi ay détention préventive lañ muy ñoo xam ne dañu leen fàttee ba noppi fàttali leen fa mbokk yi loolee nag bu wàññi ko nga xam ne ku ñëw tribunal rek ñu daal lay àtte bu fekkee ne coupable ga la yoon wax ñu teg ko ci sa kaw bu fekkee ne coupable ñu daal lay libéré nga dem kon tey jii coono yi détenu yi di dund ci biir kaso yi kon duñ ko fi dund kon détention préventive yi loolu ñu ngi koy fàttali ngóor gi ñu taxaw ci wàññi ko ba dañ képp koo xam ne ñëw bu accès ñu def ci maximum possible atte ko mu dem kon bokk na ci li xatal kaso yi loolu ci la bokk bi ko ñaareel mooy mandat de dépôt yu bari yi te mooy nit ñi bu njëkk jafe-jafe yi am ci diggante nit ñi dañ ko daa atte ci penc yi di ko atte ci kër chef de quartier yi di ko atte ci kër imam yi maanaam bépp problème boo xam ne am na bu fekkee ne chef de quartier ba mën na koo lijjanti wala chef de village ba jërul ñu di ko yóbbu tribunal jërul ñu di ko yóbbu commissariat na chef de quartier ba toog imam yi toog magi magi quartier ba toog ñëpp toog ñu bokk waxtaane problème ba ñu joxante loxo mu jeex kenn ku ci nekk dem loola mën naa tax mën naa wàññi mandat de dépôt yu bari yi bi ci des it mooy bu fekkee ni dem nañ ba ñu ko waroon lijjanti ci biir quartier ba muy chef de village chef de quartier bi ak imam ya bu fekkee ne dem nañ ba problème bi tëleen bu ñu ko yóbboo commissariat yi bu ñu demee commissaire ba ci boppam bu fekkee ne ñu mën a lijjanti la ci biir commissariat ba ñu lijjanti ko ci biir commissariat ba kenn ku ci nekk ñu wax la fa nga war a yem ak la nga war a def seen yoon loolu it mbokk yi mën naa wàññi euh, mandat de dépôt yu bari yi waaye bu fekkee ne yii xew ci koñ yi lijjatuñ ko fa lijjatuñ ko fa ñaar ñu jotee lu jotee ba néew néew ñu ne nañ leen yóbbu nañ dem commissariat bu ngeen yeggee commissariat ñu daal di acco nañ leen daal di yóbbu ñu daal di tàpp seen dossier na nañ yóbbu tribunal loolu it mbokk yi bokk na ci li koy waral kon problème yi nay jiitu ci quartier yi chef de quartier di ci waxtaan imam yi di ci waxtaan notable yi di ci waxtaan magi yi di ci waxtaan luñ a lijjanti ñu lijjanti luñ bu ñu demee ci commissariat bi commissaire bi lijjanti ko war bu fekkee ne euh, ci comma euh, kii ba lañ dem commandant bi mën koo lijjanti kon loolu bokk na ci li ci li nga xam ne mën na koo wàññi mbokk yi nit dafa am warma yoo xam ne daf ko war a dund danaa di faral di dégg ci nit ñi léeg-léeg ñuy wax ne nañ yokk kaso yi waaye man de jàpp naa ne yokk ay kaso du tax jafe-jafe yi nekk ci àdduna dañ mbokk yi dañoo war a delloosi atteb lislaam gis nga suñu borom mësuta favoriser tëjëk tëj day wax ni bépp doomu aadama boo xam ni def na lu war ñu sanctionné ko nañ ko sanctionné ci jëmmam mbokk yi suñu borom nee na walakum fi qisaasi xayaatun yaa ulil albab nee na kaw suuf sii li fi mën a dindi tooñaa ngi mooy ku def ñu def la bu fekkee ni nit ki jël na alalu jàmbur ñu càmbar ko ba seet li tax mu jël ndax nit yi duñ ne sàcc na rek ñu daan nañ dagg loxo ba déedéet danañ xool ba xam lan moo ko tax a jël ndax dafa xiifoon ndax dafa ñàkk lu mu dundee ndax dafa ñàkk lu mu faje ndax dafa ñàkk am ordonnance bu mu war a jënd ndax ndax ndax ndax buñ ko toppee ba xam ne kii kat amul seen soxla su ko tax a jël lu may bakkanu boppam rek moo ko tax a jël ñu door a seet ba xam li mu jël naka la toll bu fekkee ne toll na ci xayma boo xam ne ku ko jël dañoo war a dindi sa loxo ñu ne nañ dagg ab loxo mbokk yi kookee fi ne boo daggee ab loxo jeex na da nga toog ren ba déwén duutoo gis nit ku jël alal di jàpp mbokk yi sunu réew yi nga xam ne dañuy àtte woon islam da ngay gis koo xam ne day jaay ba julli jot mu ñotti ab rideau dugg fii ci jàkk ji bàyyi ab boutique mu ubbi mu dugg ci jàkk ji julli génn del siwaat ci place am toog loolu kan ko saj fii te mbokk yi kaso yaa ngi ne yam waxtu bu nekk ñi ngi tëjëka tëj waaye ak lu mën a xew boo tegee sa alal boo koy wan ginnaaw boo ñëwee doo ko fekkat waaye réew yi nga xam ne dañ fay àtte woon islam toujours da ngay gis koo xam ne julli day jot mu bàyyi butigam nii kenn du ko fa xaar dugg ci fii mbiir jàkka ji mbaa mu dugg ci biir jumaa ji julli aw waxtoom dellusiwaat ñëw ci palaasam kenn du ko jëlal dara ndax lan kii jël xam na bu jëlee la ko ca fekk moo tax suñu borom du favoriser bu ko tëjee tëj buñ ne nit góor ak jigéen ànd nañ ci lu dul ab ñu ne nañ seet bu sart yi dajee bu fekkee du dóor ca war ñu ne nañ dóor bu fekkee ray ca war ñu ne raje nañ ray waaye mbokk yi réew yi ñu koy defee da nga toog ren ba déwén doo ko fa gis nga àtte fa nit buñ nee nit jël na bakkanu jàmbur ñu ne ñu ñu ñu ñu ñu ñu enquête ñu enquêté ba xam ne dañoo war a jël bakkanam ñu jël bakkanam mbokk yi suñ borom moo ñu indi ci kaw suuf te liy indi jàmm ci kaw suuf moom moo ci ko gën a xam wa katabna alayhi fiha anna nafsa bi nafs ku jël bakkanu jàmbur bakar. jël bakkanam wala ayna bil ayni ku foq bëtu jàmbur nañ foq bëtam wala anfa bil anf ku xuf bakkanu jambur, nañ xuf bakkanam wala usla bil usl ku xuf nopp jambur, nañ xuf noppam wa sinna bis sinni ko xamne dam nga buñu jàmbur buñ ko faji tej nañ ba bañam wal juruha qisaas koo xam ne jël nga ngannaay jam ko ci sa yaramu morom nañ jël ngannaay li ñu nat lu toñi la nga jëm ci yaramam ñu jam ko ci sa biiru yaram yow it mbokk yi li la suñu borom jangal ta buñ ci jaaroon problème yi ci aduna léegi tay mu jeex waaye benn benn benn néeg boo xam ne yaatoowul lu ëpp juróom benn mètre wala juróomi mètre nga jël téeméeri nit dugal loolu doole bu guddi jotee nga ne da nga leen di paquetage te ku ne xam ne doomu aadama dafa am yi tàngooru boppam doomu aadama amee xetu boppam ñaari nit wala ñett sax buñ ñu bokkee benn néeg di ca tëdd bu ñu xëyee néeg ba faw ñu defaraat ko taal fa cuuraay ndax xet dañ fanaanoo mën a mën a génn ci biir néeg nga boole téeméeri nit ñu bokk benn néeg kenn ku ci nekk sa yaram tafu ci sa yaram borom loolu mbokk yi nit mën na faa jóge jële fa jàngoor téeméeri nit bokk benn néeg bokk wenn war ak koo xam ne ñoom ñëpp ci lañ bëgg di dem ñooñu mënoo am cat bu ko mate mënoo am ndox bu ko mate kon mbokk yi ñi ci prison yi te amuñu kenn ku leen waxal nañ leen nañ leen bàyyiwaat xel te xam ne coono yi fay dund mett na lool jafe-jafe yi fay dund mett na nañ leen bàyyiwaat xel bu baax a baax te it di wàññi ma mandat dépôt yu bari yi li nga xam ne it ci la ñuy daaneel mooy ñi nga xam ne suñ boroom daf leen nattoo ñu amee ab at ndax mbokk yi at nattu la يونت يال محمد نين من جهل قاضيا فقد ثبها بغير سكين يونت يال محمد نين كيف كو خامي يالا دافلا نوت دافلا غاي اباتي كات نين يو دانيو لا ريدي كي لودول باك مانام تك نان لا ميتيد و تولي اك ريندي غاي دودو تديو كو لوتاخ بو فكاني يومي اتي مولم ميغي اتي تي ادنا لب بو اولغي سابوروم دالاي تيوال وجاءت كل نفس معها saaiqun wa wa shahid ni nga xamee ne détenu bi bu ñëwee ci kanam juge bi ñu war ko àtte day ànd ak garde bi bi nga xam ne moo koy garde ànd ak seede bi nga xam ne moo moo moo war a ñëw seede ko waaye yow àttekat bi ëllëg yow ma xam sa borom dalay indi ci kanam sa ci kanam mboolem dossier yi nga àtte woon am nu ñu mën a toll suñu borom dana ko jóor ci kanamam mboolem ñi nga mosoon a àtte ci àdduna ñëpp sa borom teewal leen nga teew ñu teew mboolem àtte boo xam ne àtte woon ko sa borom tiri atte ba ba set bu attewaat ko te lépp loo ci juumoon lii lañ la koy faye jël ci sa tiyaabo jox ko kii nga xam ne da koo atte woon ba noppi juum ca atte ba mbaa nga atte ko ba noppi atte ko sa bakkan teg ay daan ci kawam sa coobare bopp rek tax ñu jël ñu jël sa tiyaabo faye ko ko mu dem aljanna ñi nga atte woon bu fekkee ne fayee nga leen sa yiw ba ñu jeex ñi nga atte woon te juum ci seen i atte boo leen fayee sa yiw ba mu jeex te say te amatoo loo leen fayee dañuy jël seen i bàkkaar di la ko jox yow yow mi xam yaatu waat moo tax yonent yàlla Muhammad ne man joxe la qaadiyan faqad subiha xam ne suñu borom nattoo na la def na ngay ab àttekat yow dañ laa ren ci dul bàkk moo tax nee na ñett ngi nii yoo xam ne képp kuy àtte na ko wattu bi ci njëkk mooy wa yanbaghi lil qaadi an yakuna vaariq al qalb nee na kiy yi war naa fexe ba jamono bi muy àtte mu bañ a yàkkamti na fexe ba xolom féex mu de dosi désoccupé doo am benn occupation bu dul loolu da nga toppi sa yàkkamti atte ay nit jum ca attee mbaa nga topp sa xol mer leen ay daan yoo xam ne yooyu wuñ ko woon te bu ëllëgee da ñëw teew ci kanam yàlla atte yi nga atte woon yépp sa borom téeri ko attewaat ko moo tax rasulullahi ne koo xam ne yaa ngi dem bay atte ay nit na fexe ba bu am jenn aajo joo xam ne war nga ko dox ci ginnaaw bi ko ñaareel mu ne laa yaqdi al qaadi illa wa huwa shabaanun rayyaanun nee na attekat bi bu demee ba topp bay atte bu muy àtte mukk fekk mu xiif mbaa muy àtte mukk fekk mu mar maru metti ndax nee na buy àtte te fekk mu xiif mbaa mu mar maru metti mar wa wala xiif ba mën na koo gànd ba tax àtte boobee mu doxe ci nu bokkut ak nam ci waroon a doxe jël toor jox ko koo xam ne yooyowul woon toor jël dëgg jox ko koo xam ne yooyowul woon dëgg àtte booba sa borom war koo àttewaat war a rasulullahi bi laa yaqdi alqaadi illa wa huwa shabaanu rayaan biko ñaaril mu biko ñattel mu ne la yaqdi al qaadi bayna isnayni wa huwa qad atté kat bi na moy ci di atté ta fekk jamono bi mi atté dafa mex ndax bu fekké da ngay atté ba do fekk nga mer ci bir atté bi man nga top sa xol atté nit teg ko lo xamni yoyo wu ko won akka ja top nag nga wara dem ci kanam sa borom mu ba ko atté kon nit bu muy atté fekk mu ne ci ay itam nit bu muy àtte fekk mu xiif mbaa mu mar ci wax yonent Yàlla Muhammad waaye nit bu muy àtte ñaar ñoo xam ne dañuy jot dañoo jotee te fekk moom mu mer benn mu mer merum boppam mbaa mu mer ki muy àtte képp koo xam ne dañu la koo indil jox la ab yi nga war ko àtte te fekk am diggu dox seen diggante dossier ba delloo ko bu ko àtte bukk ndax saa soo ko àttee da nga feeñal sa mer ci biir àtte ba te boo lëgee sa borom dana àtte wat àtte boobee yonent euh, Sayyidina Ali ibn Abi Talib ci biir toolu xare dafa jàkkaarloog ab yéefar di liwaatoo moom ba daane ko toog ca dëng ba di lambu jaaseem ci mbar mi di ko rocc bëgg a dagg bopp bi yéefar bi tifli ko guux guux lex yi ba mu fees ay tifli mu sotti ko ci karamam Seydina Ali ibn Abi Talib ne bëri jóg taxaw yéefar bi jóg daw mu taxaw di fomp ay tifli tam saxaaba yi da wër ko ne ko waaw yaa Abal Xuseyn noonu bi yàlla bi nga tër ko ba ray des ci nga jékki-jékki ne ko yàlla bàyyi mu ne bi ma demee bay rotti jaasi yi ci sama mbar dafa maa tifle ci kanam bi mu ma tifle yëg naa ci sama jëmmu mer moo xam ne bu ma ko rayoon mer tifle gi ma tifli moo tax ma rey ko waaye reyatu ma ko ngir yàlla loolu laa tax ma jóg ma waaye nit koo xam ne dig dafa jaar seen diggante mbaa nga mere woon ko mbaa sa xol jubluwu ko bu ñu la indilee ab dossier bi ne la atte ko jëlal dossier ba nga delloo ko ndax nit rek nga te saa soo ko attee atte boobee faw mer mi ko mer dana ci feeñ diggu yi dox seen diggante dana ci feeñ ala kulli xaal te boobaa da ko teg loo xam ne dana la wóor ne lii sa bakkan nga topp teg ko ko waaye yoon tegu ko ko woon te loola it nga xam ne boo lëggee da nga da nga koy layoog sa borom tubaar ko taala kon loola it na ko suñu àttekat yi bàyyi xel bu baax a baax yonent yàlla Muhammad moo leen ko laaj moo tax leen ko